sëriñ Touba di ñaanal bu baax sëriñ Sidi moom sëriñ Abdul Ahad ci taxawaayam bu rafet ak ci yéeneem bu rafet ba tax mu tànn commission bi di ko liggéeyal ci lépp lu jëm ci waajtaay bi Cheikh Abdul Ahad bi nga xam ne baaxoo nañ koo def ñaar fan ñett ci weer wu jot ci weeru kor yi te ren jii mu dëppoo gaaw bi di ñëw di set sulet ñu ngi baax a baax di ko jaajëfal moom sëriñ Sidi mi ñu may ñu ñi nga xam ne am nañu yéene liggéeyal suñ turandoo am yéene liggéeyal suñ sëriñ am yéene liggéeyal suñu soppe mu yombalal ñu bañ mën a liggéeyal suñ ñooñu ma wax yépp kon ñi ngi sant bu baax waaye nag di jagleel ak cant gu rëy gu mat sëriñ Seexuna moom sëriñ Abdul ci pas-pasam ci wane li mu doon ci sëriñ Abdul ba tax na dañuy dox ba ñëw ci moom ngir amal bis bii lam ñu teetee ci kanamam ci mbégte rek doyoon na ay bernde doyoon na lépp wane ci mbégteem yemu fa ba mu fa jógee lépp loo xamante ne tax na bis bi am ti jag sëñ naa di dox jëm ca la di wax di jëm ca la jëm la ci ak njabootam kon sëriñ naa ñi ngi lay sant bu baax ñi ngi lay gërëm bu baax ñi ngi lay ñaanal lii yàlla nañ ci daje ngërëmal Seexul Xadim ak Seex Abdul Ahad sant nañ la bu baax gërëm nañ la bu baax lépp luñ yaakaaroon ba tax ñu taamoo ñëw fii lañ ci doon séentu kawe na suñu njort ñu ngi lay sant baax dina ñaanal yàlla may la ak fan wu gudd di leeral bu baax ni nga di daaw ñi ngi ko defe woon ci kër sëñ Moustapha am mu taxawoon ci taxawaay yu am solo yu mel ni ni ko sëriñ Seexuna taxawee doonoon lu rafet lu sedd xol lu taxoon suñu xel gën a dal ndax commission culturelle bi dafay baaxoo am ay waxtaan yoo xam ne da ko daan def ci biir kër sëñ Abdou muy man ñetti waxtaan ba ñeent ba jëm juróom commission bi xalaatoon ne nañ ci jël ceet jànn di ko génne di ko yaatale liggéey bi ni ko sëriñ si di bëggee ci njabootu si Abdul Ahad bi ndax ñu tàmbali woon ko daaw waaye ñu ñu demagun yépp loo nañu yott ci ñu jublu si ndax ñi ñu jógee ak ñi ñu jëm ñëpp benn pas-pas fi la kon sëñ bi ñu ngi sant bu baax sëriñ naa di sant bu baax sëriñ Moustapha mi nga xam ne ni ngeen daaw moom ñu fekk woon te jëftaay ba rafetoon lool di sant sa njabootu bopp ji nga xam ne moom la ñu boole ndax liggéey bi ba nga leen ko joxee ba noppi tamit am nañ ci pas-pas akum déggoom ñun ba li nga xam ne noonu lañ ko bëgg woon bi ñëwee fekk rek ñu defe ko duñ ko bëgg woon lépp biñ fi ñëwaatee ci ngoon daanaka lu ñu soppi amu ca lu ñuy defar amu ca lépp dañoo fekk nañ ko bëggee woon ñu amit sax lu kawe suñu jox kon ñu ngi koy ñu ngi sant sa njaboot bu baax di la ko seereel ci yomb gi ñu yomba àndalub liggéey ndax bi ñu dikkee fii gis nañ ne mbooloo mu takku di taxawu nosu moo nekk fii ba yombalal ñu li nga xam ne moom lañ doon def kon ci turu commission bi ñu ngi ñu ngi sant sa waa kër bu baax buñ ci jiitee sëriñ Abdou Samad mi nga xam ne ne moo àndoon ak ñoom li ñu teg ci ay yoon yu waxtaan lañ bëggoon lépp ak nañ ko bëgg woon am nañ ko sëñ bi suñu xol sedd na suñu yaakaar gën naa dëgër sant nañ la bu baax gërëm nañ la sant nag daa mënta weesu sant waaye buñ weesu wanoon weesu sant ñu def la nen waaye sëriñ bi jërëjëf jërëjëf jërëjëf yal jëf yàlla yàlla fay ci bàkki sal xadim ñi ngi sant bu baax mboolem ñi nga xamante ne commission bi bu ñu jógee waajal màggalu Sëriñ Abdul Ahad dañ ci ànd ak ñoom loolu di ci jiitu mooy waxtaankat yi nga xamante ne ñooy def waxtaan yi dale ko ci ñi ko doon def ci jataay bi ñu toog li sëriñ Ahmadou ak sëriñ Fallou sëriñ Xaadir ci li ñu waxtaan fii doon lu am solo lu am njariñ commission baa ngi leen di sant ñi ngi leen di gërëm di jaajëfal bu baax ndax waxtu wu ñu leen soxlaa ci yu nii dafay yomb lool ngeen xam ne ñu yéen ñoo ci yem kon ñi ngi leen di sant bu baax ñi ngi leen di gërëm di sant tamit mboolem borom xam-xam ñi nga xamante ne ñoom lañu doon yabal ci rajo yi di di fukki fan yi ñu jiitu bis bu set danañu am ay émission ci rajo yi ak télévision yi ba ci site yi kon ñooñu ñëpp nga xam ña nga ci doon dem ñu ngi leen di sant ci turu commission bi di leen gërëm di leen ñaanal ñu daje ci ngërëmal sëriñ bi waaye di sant bu baax pares bi nga xamante ne lu mel nii kenn mënu koo def mu rafet mel na mu war a mel te ànd ko ñoom te presse boobu xam si suñu Abdou Lahad ni mu demee ci ñoom tax na ñi ngi sant pares bu baax muy rajo di télévision di site internet yi kenn ku ci nekk ci ñoom wan nga ni ñu liggéey bi sunu liggéey la xooloo ci lenn da ngaa dox ngir jëm ci lu koy jagal kon ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm ñi ngi leen di ñaanal yàlla may leen lu kawe seen jot ci mécc mi ñuy liggéey ci bàkki Cheikh Abdoul Ahad ñoom ñëpp sant nañ leen bu baax gërëm nañ leen bu baax a baax di sant bu baax nag ci wàll télévision yi ñoo xam ne danañ leen defal mention spéciale ñooñu bokk na ci Walfadjri ak TFM ak Lamp Fall ak Touba TV seeni taxawaay rafet na lool seeni jàpp ak commission bi jëflante bu rafet ak yaatal rafet na lool ba ci seen TV ñoom ñëpp seen taxawaay ci commission bi rafet na ndax lépp luñ fa war a am li yaakaar nañ ci ndax li weesoo bu lépp rafet na ci lañ war a waxante woon ak ñoom te li ci kanam tamit noonu lañ ci am yaakaar kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ndax mi ngi nii rek Walfadjri yabal na fi Mamadou waxtaan yabal na fi kon loolu seen mën a ci li may wax ñu ngi sant télévision yu baax a baax ci turu commission bi nag ni ñu defee bis bii di waajal màggalu si Abdou Lahad ko tey la première bi insha allah bu talaata jéeg insha allah am nañu yéenee bu wenteeri demi jotee ca kër si Abdou Lahad ñëpp teew fa ndax émission bi ñu baax baaxoo defal ak Touba Touba TV taabaroon euh, Touba plateau spécial ba noonu lañu koy waajee talaat ji di ñëw di sàkku ci ñépp ku mën nga ñëw teew fa ànd koog ñun ngir la ñu fay waxtaanee ci ñeblaat la jëm dox ci ñeblaat jar na guddee àll jar na fanaan àll ba tey tamit commission bi noonu ba tey àllarba ja di ñeenti fan ya daayira man la bu faw sey ni doomi donga yi danañ fa def ngontum xasida mu mag ci kër Sëriñ Abdul Ahad képp ku mën a ñëw ànd ak ñoom ngontuma ak waxtaan yeeg yépp nga def ko ngir lépp waajale ko si mission Abdul bi ba tey ci alxames ja bu ñu xëyee incha allah doomi donga yi Euh, mbokki mbaapal yi ci alxames yi mu ñu mën a mbokki mbaapal danañ fa xëy si nañu defoon daaw jàng alxuraan jàng xasida ba ngoon jot ñu dix lay tàmbali ba tàkkusaan ñu siyaare sëriñ si daal yéwi ñi ngi wax ñoom ñépp ku ci man nga teew fa ànd ak ñoom alxuraan ja ba mu jeex waxtu woowee nag bu tàkkusaan li jeexee insha allah commission culturelle bi am na benn exposition bu muy def ci kër Sëriñ Abdou Lahad ngir wane ak jàng dund Sëriñ Abdul Ahad ci li settee joojee lañ koy ubbi ci kër Sëriñ Abdul Ahad mu diire ci alxames ji ajjuma ji ba ci gaaw bi ngir ku bëgg am loo delluwaat Sëriñ Abdul Ahad boo fa ñëwee da fekk ay mbir ay weer nañ yoo xam ne nga ci mën a sukkandiku ci alxames ji même ci alxames joojee bu ñu demee ba julli gee ba noppi incha allah sëtti Sëriñ Abdul Ahad yi danañu amal benn conférence bi ñu baaxoo amal ci kër si Abdul Ahad te ren ñu tudd ko Sëriñ Saalih Mbàkke ñu ngi ñaan ci mbooloo yépp ñu man teew fa nañu fa daan teewee ba tey dem ci ajjuma ji commission culturelle bi bu ñu sëlmalee tàkkusaan 17 heures am na benn discours benn jataayu jàng discours Sëriñ Abdul Ahad boo xam danañ ko fa amal te Sëriñ Fallu sa Asan def ko di ko def commission bi di sàkku teewaayu mbooleem ñi nga xamante ne mënuñoo ànd ci jataay yooyee la ca des bu ñu xëyee ci ajjuma alxames ca gaaw gaaw fa du bisu màggal ga commission beeg ñeneen ñu mën di doon danañu ànd ci kër Sëriñ Abdou Lahad ga jàng alxuraan jàng xasi xasida bu 19 ñu def cérémonie officielle bi fanaane jàng alxuraan xasida ci kër Sëriñ Abdou Lahad ak ci kër mbooleem njabootu Sëriñ Abdou Lahad kon bisu Sëriñ Abdou Lahad ko teew alxuraan te xam tamit commission bi di képp koo xam ne mën nga ko balaa bis ba loo mën ci alxuraan nga def ko def ko addi Sëriñ Abdou Lahad ku mën a jàng alxuraan jàngal alxuraan ku ko mënul nga jox nit mu jàngal alxuraan ndax Sëñ Abdou Lahad ku ne xam ne yàgg naa liggéey Sëñ Tuubaa ci lu ne waaye liggéey na ko ci alxuraan te lu mu ko defoon ne woon na ku liggéey a fay kon mu doon defal Sëñ Tuubaa ko delloo jéem a delloo bor ñu ngi sant yàlla bu baax na ngi sant mbooleem ñi nga xamante ne ñu mooy njabootu Sëñ Abdou Lahad bi kooku nag mënuñ cee ñàkk tudd soxna may muunam Cheikh Abdou Lahad ndax soxna may muuna day doon koo xam ne waxtu wu nekk fu ñu jógee day jóg ànd ak ñun lu ñu lu ñu xalaat mu jóg luy tax mu am mu jàppandal ñu ci bu ñu xalaat dara danañu woo fu ngeen toll yéen a ngi ci wàccaay kon soxna May ñi ngi lay sant bu baax ñi ngi lay gërëm bu baax mboolem sarak yi nga xamante ne saa booy jóg ñi leen jóg leen ñu jóg ànd yow ñoom ñu ngi maas di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal liggéey bi ñoom ci ngërëmal Seexul Xadiim ñu ngi sant daal sant mënta weesu sant gërëm mënta weesu gërëm jërëjëf jërëjëf ku ñu soob dañoo tànn ku mënta wax wax loo ko moo tax lu ci gàtt wala manque ci ñoo xam ci ci koy wax ñu ngi sant yàlla bu baax nag ndax ren jii mooy ñaar fukkeeli at ak juróom-ñeent bi ñu dalee màggal si Abdou Lahad ak léegi kon mel na ne mi ngi bëgg a yàgg kon ci lépp nga rafet te mel na ne commission bi tamit taxawaay yi ci am waxtu ni ngi koy am kon waxtu ñu ñuy jaaj ngir ñu gën a jëm kanam ndax ñi ngi màggal gan adduna Sëriñ Abdou Lahad ni ma ko waxoon bëkk démb koo xam ne ba ma gënee adduna léegi yàgg na yàggut ndax boo ko doon xool ak jataay bii ñu toog nii nii nii téeméeri at la ak juróom benn ak fukki weer ak ñaar fukki fan ak ñeent sëñ bi laxat ba ci ba mu gënee àdduna jataay bii ñu toog téeméeri at la ak juróom benn ak fukki weer ak benn ak ñaari fukki fan ak juróom ñeent yàlla na yàlla barkeel ñëpp yàggal ñu fi lépp ci lépp ñaam ci ngërëmal Seex Xaadim a sëriñ Seexuna jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñu ngi siyaar baax sëriñ Amsatu ak mboolem ñu fi teew ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh asalaamualeykum wa mbokk yi fi teew yëpp noo ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen balu àq te di leen bal àq di nuyu sunu kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo fi teew euh, tàmbalee ko ci sëriñ Cheikhouna Mbacké moom Cheikh Abdou Lahad mi nga xam ne mooy sunu buntu ci kër Cheikh Abdou bu ñu ko nuyoo rek nuyu nañu mbooleem kilifaam yu baax yi nga xam ne ñoom la seqal liggéey bu mag nun day noo ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax donte ay donga lañ yoo xam ne rek seen kilifa da leen a joxoñ ndigal nu fas yéene caa dox na sëriñ Touba diglee woon ab taalibe mu doxe ko ci ndigal loolu rek mooy sunu sabab ci teewaay ci jataay bii waaye li tax ñu leen di sant mooy dangeen noo defal taw feex joo xam ne taw feex ju ñu yittewoo woon la di ko sàkku kon bi ngeen nu ko mayee ak cant war na sunu diggante ak yéen tawfeex jooju nag weesu Cheikh Abdoul Ahad mii nga xam ne képp ku ñu woo ci liggéeyal ko ak lépp loo xam ne dafa jëm ci mbiram euh, ku la ko sant rek mel na ne sant na la loo xam ne sa njariñal bopp la sant na la loo xam ne loo mënta ñàkk àdduna la ak àllaaxira ndax yaari yëf mooy sabab si moom de dafa waxoon ci ak njalbeenam ne sëriñ Tuubaa de dafa waxoon ne billahi allazi la ilaha illa huwa xayaati wa mamaati xarakaati ma sakanaati kullaha maa rasulillahi sallallahu alayhi mu ne man tam defe naa ko noonee ba muy daaneel wax ji mu ne fii ma fiy nekk day sëriñ Tuubaa rekk laa fiy nekkal fii ma fiy nekk day luy jariñ mbindeef yi rekk laa fiy nekke ba tax na képp kuy jariñ mbindeef yi may def ak yow di wax ak yow kon defe naa képp kuy mbindeef rek ameel nga njukkal Cheikh Abdou kon loolu bokk na ci tawféex yi tax cant gii ngeen nu may nu leen ciy santaat bu baax a baax ñaareel ba mooy dafa waxoon ne bu ngeen gisee ma di leen woo ci liggéeyal Serigne Touba day damaa gis wax jii mu wax ne hadiyatullahi almuin saaxat li xayri yallaain wal yawma billahu yuin man saahu wa fi xadi wax gi mu wax ne sunu borom dana jariñ ci moom képp ku ko soob moo tax ma di leen woo ngir ngeen jariñu ci moom kon nun loola tawfeex la ci nun doo xam ne mënuluñ ko sunu bopp kon moom mi nu ko defal ku nu woo ci lu jëm ci mbiram amee nañ la cant ameel nañ la ak njukkal ameel nañ la njukkal mun nag nu am tawfeex lañu ci sëriñ euh, ci Cheikh Abdou Lahad ndax sëriñ naa mii nga xam ne moom lañu mooy sunu bunt ci moom ah ku ne xam na ne lii ngeen doon wax léegi muy makaarimul axlaax ak lu ñu demee nun de am nañ ci taw feex lool ngir jëmm ji yi nga xam ne moom lañu ñu jëmma euh, moom lañu ñu euh, euh, ndax yoon woowu nga xam ne moom la sëriñ Abdou Lahad xàlloon yaroon ci njaboot gi yaroon ci taalibe yi ku ne xam na ne moom mi am na ci cër boo xam ne àdduna sépp seere nañ ko booba ba léegi nag wàccul yoon woowa di ca dox te képp ku mu àndalit ca yoon woowa rek la àndeek yow ba tax na njaboot gi nga xam ne ñoo nekk ci kër gi tënku ci fédération bi nga xam ne mooy fédération Al Maarif firnde la ci ndax mboolem daayira yi nga xam ne ñoo nekk ci kër sëriñ bi toll ci ñeent fukki dayra ak juróom benn yoo xam ne mooy fédération Al Maarif yu ci ëpp nekk ci biir réew mi yi ci des nekk bitim réew am na ci yu nekk France am na yu nekk Espagne am na yu nekk Amérique am na yu nekk Afrique du Sud fédération yooyu yëpp wenn tur lañu am muy almaarif loolu nag day wone bennoo ak bokk koo xam ne sëriñ bi boole nanu ko ngir euh, lépp loo xam ne dañ koy def mu doon benn euh, bi muy sos fédération bi de daf ñoo wax nañu seenug bennoo ak seenug ànd lu nekk ci kenn ci yéen ñi ci des xam ko ànd ci ak moom bu dee mbégte ñu ànd ko moom bu dee aw naqar ñu ànd kook moom moom a gën a ñor ci li ngeen fi indi moom a gën a ñor ci li ngeen di def kon nag loolu wane na ne euh, yar boobu nga xam ne ndax bennoo googu bu xasee am rek mboolem jikko yi ñu doon wax ci diggante jullit ak mboolem jikko yi ñu doon wax ci diggante nit ñu ànd ak diggante jëflante nit ak morom ma su bennoo googu xasee am rek loolu lépp mën naa am ndax nit ki soo ko defee ni sa bopp li ngay xalaat ci sa bopp nga koy xalaat ci moom li nga yéene ci sa bopp nga di ko yéene ci moom yaakaar naa ne da nga ànd ak moom jikko ju rafet danga nga moom jikko ju baax da nga ànd moom it ci melokaan yi nga xam ne moom la sunu borom tànnal ab jullit ngir mu war cee ànd ak bokkum jullitam sëriñ bi nag ci loolu rek la toqi mbooloo mi ci loolu rek it la teg mbooloo mii nga xam ne mooy mbooloom boppam mii di fédération Al boole ko nag ci ñaar yi nga xam ne ci la sëriñ bi yaroon mbooloom muy al ilmu wal amal euh, xam-xam ak jaamu yàlla ndax mbooloo kat noonu ngeen ko xamee mbooleem loo xam ne dañ koy gis ci mbooloo ñu di ko ca tënk wala di ko ca doxe mbooloo mi noonu rek la tënkoo mbooleem lu ñuy def ci mbooloo ci wàllu xam-xam am na ay kuréel yoo xam ne sëriñ bi ci boppam moo leen tànnal boppam euh, teg leen ci boppi mbooloo mi ngir ñu saytu mbooloo mi ci wàllu anam googu bu dee ci wàllu liggéey it kasaalika egg na ba ci taxawal comité boo xam ne moom la ñuy tudde jamiyatu mudifi suwaari Cheikh Abdoul Ahad muy commité d'organisation au service de Cheikh Abdoul Ahad muy comité boo xam ne mbooleem lu nit di soxlawoo rek su suñu ko yëgee rek euh, bu dee loo xam ne mbooloo da koo war a saytu wala mbooloo da koo war a taxawu danañ ca daal di mën a jëm danañ ca daal di mën a euh, euh, dox ca doxin wa nga xam ne mooy doxin yu gën loolu sax defal nañu tawfiix ba ci ndaje mii nga xam ne tey ci la ñu teew bi mu egsee ci nu nit amuñu ci jaaxle ndax toq googu nga xam ne sëriñ bi toq woon nañu ko ci liggéey teg ko ci xam-xam ak it ci liggéey ci ak nosoo may nanu ba bi nga xamee ne euh, agsi nañ ci euh, jataay bi rek bi mu agsee ci noonu rek sëriñ bi ci boppam daa daal di am ñoo xam ne xam na ni ñii ñoom la féete leen loolu te defe naa comité bi nga xam ne mooy commission culturelle bi bu ñu egsee loolu daal dina cay feeñ loola itam mooy dox ba ci euh, jataayu tay bi loolu nag day feeñ rek ci li arab yi di wax min xusnil birri an yaxfasal mara wudda abihi nit ki la woy juram nekkoon di ca dox doon loo xam ne lu rafet la doon loo xam ne luy dundal diina la du dundal lislaam bokk na moom it ca lay rafetal ak mbaaxam bu ñëwee mu wéyal loola kon ku xamoon Cheikh Abdoul ca nasu ga xam Cheikh Abdoul Ahad ca organisé ga xam Cheikh Abdoul Ahad ca doxin wa ci mbooleem anam yépp boo ñëwee ci kër gi tey ba gis li nuy doxe da nga xam ne kon sëriñ bi foofee Cheikh Abdoul Ahad jaaroon rek fa la jaar fa la jaarale mbooloo mi kon ñun loolu tawféex la ci ñun ci suñu digganteeg sëriñ bi noo ngi koy sant bu baax a baax di ko ñaanal sunu borom yàggal ko ci sunu kanam lool guddal aw fanam te may ko ak wér ànd ko nag ak njabootu boppam gi nga xam ne ñoom la ñu bokkal kër gi te ñuy njaboot goo xam ne niit ñu neex a bokkal kër gi lañ ndax ñoo jiitu sunu kanam ñu topp seen ginnaaw sunu diggante ak sëriñ Abdou Samad mii rek feeñ na ci loolu te comité euh, commission culturelle bi mën naa seede loolu di sant itam kon mbooleem ñi nga xam ne ñoo nekk ci fédération Al Maarif comité d'organisation bi ak mbooleem membre yi ñoom ñëpp noo ngi leen di sant noo ngi leen di gërëm noo ngi ñaan commission culturelle bi sunu borom yàlla na leen yokk liggéey bii ngeen di def ngir Cheikh Abdou Lahad yàlla na ko sunu borom nangu te def ko aw yiw ci saare ko ci mbooleem jullit ñi ci saare ko ci mbooleem taalibe yi ci saare ko ci mbooleem umatu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi sant ñëpp noo ngi gërëm ñëpp euh, wax ji lu ci dëng rek ci man la lu ci jub nag mbooloo mi nga xam ne ñoo àndoon te ëpp ma xam-xam lool may ko xeebu ci seen biir ñu tànn ma jox ma seen kàddu ci man la dese waaye ñoom lépp matoon na ci ñoom wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa salaam bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ci turu suñu kilifa gi toog sëñ Cheikhouna xam naa dana jafe nag ma wutu ko waaye nag li muy jafe-jafe lu tee ma jéem rek ngir wéyee ndigalam sëñ bi dafa wax ni naa ko santal commission culture bi ci taxawaay bu rafet biñ am liggéey sëñ Abdou Lahad santal ko tamit santal ko tamit bokk yi fi teew yëpp muy ñim bokkal Sëñ Abdou Lahad di ay góor di ay jigéen ak doomi boppam yi fi teew ak taalib yi fi teew bu dee njabootu boppam gi nag nga xam ne Abdou Samad seexu naa moo leen jiite nee na naa ko jot li jant gi tàmbalee ko ci Abdou Samad ba ci waa daayira bi yëpp waa fédération bi yëpp sëñ bi nee sant na leen gërëm na leen mi ngi rafetlu seen taxawaay te ñaan jëf ji ngeen di jëf te sëñ Abdou Lahad tax sëñ Tuubaa tax seen digg moom mën na ko tafay leen du ko tafay ko duxul leen wallaahi leen baat na commission culture bi na nga xam nag mooy ñoom ñoom sëñ Abdou Lahad ñoom ñi maa ngi sant ci turu sëñ Cheikhouna waaye di leen sant ci turu sëñ si bi ak sama turu bopp ndax li ngeen taxawal nun noo ko def te mënuñu ko ngeen wot ëpp ñu ci yéene ëpp ñu ci pas-pas seen temps bépp ak seen alal ngeen def ko ci ngir yàlla ngir bokk ak ngir seen turandoo ak ngir dund sëñ Abdou ak pisal ko ak leeral ko ak wane lu am solo ndax day jëmm joo xam ni ku ne mën naa jëriñ ci moom ndax bi mu fi jege yëggut waaye jëfam du fi jóg ay mbindam yu fi ay waxam yu ay jëfam yu waaye nag yéen yéen am fu lay taxaw ko leeral ci anam gu ne kooku ñu ngi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm di ñaan tam ngeen dajeek ngërëm Sëriñ Tuubaa ak ngërëm Sëriñ Abdou Lahad te ngërëm la bu ñëwee bu ñëw ci yéen kese seen bokk yi jiitu yàlla jox seen fay seen njaboot yi ñëw tam te ñëwaguñ yàlla jox seen fay ilaa yawmal qiyaama Fallu wax na ko sànq Fallu bii nee na bàyyi gannaaw delsi na moo ko wax yàlla wax na ci dëkk bi wala du yow moo ko wax sànq mooy ñiy wax jaafum rek di dural sëriñ bi di wax loo xam ne teguñu ko ci te leerul ay nat rek ngay dégg yoo xam ne wérut toujours ñu koy wax barki dem ba déglu naa benn aset boo xam ne ka cee wax sax du wax katu njaaxum waaye xaj nañ koo jox xibaar boo xam ne xamul nu mu demee mu koy leeral rek bay wax ni sëñ Saliou day daana jële fii ay géej di ko jaay Mali sëñ Abdou Lahad amoon na bitig euh, ngaay di jaay engrais engrais waaw loolu wérut xëy na sax yooyu wérut daif na am hadis daif kon loolu yéen seen bopp nag da ngeen ko war a boole ci liggéey bi di ko saytu loolu nag fii da koy saytu moo tax nag da ngeen niru seen turóno rek yemal yàlla na nga dund ak yàlla na nga dee ak baax nag ak bon na su ngeen ko def rek dem daal di wax ne bàyyil naa leen fondation boo xam ne àtt na lépp loo ci mu dem waaye nag ragal moom du jëm guy ku ragal moom doo jëm guy kon buñ ragal daa waxoon naa ko fi am na kenn ko waxoon tam yépp dañuy bëgg rek ak taalib am na solo diggante sëñ Abdou ak sëñ Fallu amul luñ ci defar aw fan amul luñ ci defar fan ndax dara dafaa ñëwut dañuy benn te ñuy gën a roy sëñ Fallu sëñ Abdou Lahad bokk ba tax na yàlla dimbali ko ko tudd tudd ko te moom ak wajuram nit nag bu ngeen bokkee wajur mu am tëlki bu baax jaar ci yoon wi boo ko ree rek da ngay jàll da ngay réussir comme moom waaye garsion bopp fital mu baaxul ñii xisa bi ñaan nett bi sëñ Abdou Lahad sëñ Fall kaalaama te sëñ Abdou jël ko teg ci teg ci bopp mu ne ko bu teg ko bu teg ko fii tege ci sa dox booba doon julli dafa dagg julli gi doon sëñ Tuubaa dagg julli xalaatu ko sax hmm? benn xase la ak julli yooyu itam dafa mat leer ndax xal dañ koy dégg di ko wér bu ko defee ñeen ñi nga xam nag dañ naan murid yi dañoo woyofal ak jaamu yàlla ak kaala rek bu rot ngir ne ci néeg julli ko xam yëpp dafa tegal kenn yooyu itam dafa mat leer li sëñ Bousso waxoon sànq sëñ Ahmadou sëñ Mouhamed Mbacke wax wax na sàng ci noonu wax ci makaarimal axlaax ba lépp ci sëñ Fallou Sudey dafa am xesa bu demee noonu boo xam ne dafa daloon sëñ Saliou ci mbuur dafa amoon xar moom reyal mu di ko feesoo ab feeskat daal bi fees ko ba noppi fob bool bi tudd ci lu baree di ko sàcc di ko jëli ci mbedd mi naan na ma am ko tollu fii fekk sëñ baa ko toll toll ko sëñ bi sëñ bi sëñ bi bool ba dolli ko yénnee ko këram loolu mooy makaarimul axlaaq ñooñu boo gisee ñu raw ñëpp dañoo jege woon seen borom mais dañoo jege doomu aadama yi ngir jege ngir dimbali leen waaye lii xew léegi nag tëju taalibe bi sëñ Tuubaa ak sóor leen amatul mujj sëñ Blaat mi ngeen di waxtaan léegi li ko daan tax a tëju mooy xanaa ñàkk yor lu mu mën a dimbalee nit ñi looloo koy tax a bu jaxee bu ne la xam ni jiba ji dara newu ci waaye su ca la nekkee day génn ci penc bi ku ñëw mu dimbali la fay la soxla ndax daana wax ni koo xam ne sëñoon ni mënuma ko sa joone du ma ko def ngir ki la fa teg sooyul da ngay làq sa jëm loolu rek moo taxoon maa ko def kon kooku ku ci loolu rek mën a jàll am na kenn koon wax ci sëñ Abdoulaye ak politique sëñ xaar yi am sëñ Abdoulaye moom mooy politicien bu mag mook sëñ Fallou ay politicien ak pii lañu moom waaye nag ngir defal sëñ Tuubaa ab dëkkam ak dimbali taalibe sëñ Tuubaa loolu mooy politique waaye defuñu koon seen poos ndax boo seetee ñoom ñaar kenn ku ne yilif nga Tuuba ñaar fukki at nangam waaye bàyyi woo fi dërëm bàyyi woo fi quartier bàyyi woo fi sa doomu kër lépp sëñ Tuuba ñu ko jox dañoo lëggee sëñ Tuuba fàtte seen bopp waaye sëñ Tuuba fàttewu leen loolu mooy li am solo ab jàngale la mat a jàngale daana wax ne nguur dafa saay-saay dangay ngay soo ko bàyyi ko mu jëlee ko dem sa njaboot day jaxaseeg sa njaboot da ngay taxaw ci buntu ci digg buntu bi bu ngóor soxlaa jaar ci yow bu sa njaboot soxlaa jaar ci yow waaye suñ la jëlee dem sa njaboot jaxase la ñoom dañuy fekk sàmm yooyu yaay ngi dooleel ko ba dootu la yi bëgg ko jaaree ci moom mu yàq sa njaboot yaa ngi ci yàlla musal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 mu ne daa Abdou Lahad lépp yàlla may da ko muyul kenn gannaaw Suleymaan doon yonent ba noppi nekk buur moom la ko defaloon ba mu koy wax Ceerno Muntaxa moo ko doon traduire wala tëpp loolu wax ma koy traduire loolu nag ku ne mën na mu daan doxale li mu gën daan doxale ci ci diine ji lu ko yàq da ci xar tànk tufayam lu koy defar sañ na caa def àllam ba jeex takk lu tooñ te ku tooñ mu teg la ci noonu mooy kilifa bu ko mag rek ñu ngi jël dañ tege ci moo xam kilifa adduna la moo xam kilifa diine la boroom xam-xam bu jàng moo yës ci adduna moo xam conférencier moo xam journaliste la ndax la ñuy bind doon dëgg taxaay seen tax di bind te loolu moo bari seen daal nag lañ daan wax mooy lan gëm yéen commission bi itam loolu am ngeen ci responsable sax yàlla dimbali leen itam nit ñi maanu ngeen nit ñi jub ngeen nit ñi baax ngeen yàlla ci yàlla saxal benn nag mooy ragal soldat bu ragal ak mooy taalib bu ragal sëñ Abdou Lahad général boo xam ne dafa amul fit day ne ca kanam lu muy woote moo ci jiitu nekk ca waaye du topp rek yebal ay ndaw ñun taalibe yi nekk léegi dañoo dañoo yaafuus léegi ñu ngi koy wax sëñ Tuubaa léegi ñu ngi koy wax ñu baax na te dul réagir ak njaaxum kenn du ko tàggoo da ngay jékki-jékki ni ca xës waaye kenn du ko tàggoo soo ko defee ba dox sëñ nopp topp ci lijjanti des ko tàggoo ak njeexam koy tàgg koo gis muy tàggoo ak njeex du ma ko def du ko def waaye sëñ Tuubaa fi toll fan pas-pas sëñ Daam xam fi mu toll fan ci pas-pas ñi gëmul dara nit ci réew mii di ci wax te kenn saafaru ko lu ma ta jóg la damul xam ne kan moo ànd ak ñoom damul xam nguur la lan la te ku wax kenn ci ñoom dara bala ngaa fay ñu jàpp la fii nag lu ne ñu ngi koy wax sëñ Tuubaa lu ne ñu ngi koy wax gaayal kenn sawaroo ko kon nag ñu ngi jooy suñu ab laat bu baax a baax ndax kat dërëm bii da ko bàyyoo nag ñëpp la ma waxoon sëñ Fallu rek neen sëñ Fallu garam bi suuf la te suuf ko lekk du rees dafa waxoon lim ni ko limal ma ñi fi nekkoon ci dëkk bi te noonu woon sëñ Fall kana kana ci dund mu ngi lim ña dee ba ba ba mu bari mu ne a jeex mu ko ñooñu de ñi dee ñoo tane ñi ñi dund waaw ñi dee mu ne ñoo tane ñi dund laq-laqal rek ba dee lañu def kon ku am kilifa yu mel noonu am royuwaay yu mel noonu war ngaa sàmmonteeg ñu koy tilimal wala ñu koy xajamal loolu nag yéen ñi ay borom xam-xam yu bind di wax seen kàddu jote fu ne di leen bind di tontu di wax ndax ñu war a wax suñu waxul rek suñ tontuwul day mel li ñu wax day dëgg day saxal dama seen Saliou waxoon ci benn waay yi mu wax daa bari mu ne sewet yëpp te boo boo ko tegee boo ko day nga xam danga yëgatu danga koo saxal wird bi dafa yàgg ba ñu remplir ay fen fen yooyu dafa màgg ba ñëpp jàpp ni moo mooy murid gi fi mu toll te murid gi tasawuf sell la kon maa ngi guddal maa ngi jéggalu bee ma digal ma wax rek waaye sa laaw xalaatuma ko woon sax damaa ñëwoon rek ngir tëbbu si waaye ci coono laa jóge xaw a mënut a ñàkk ma def ko rek taalibe sëñ Cheikh naa rek man maa ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal ci sa barke baay bu baax ba yàlla guddal sa fan te dool la wér njaboot si baat yëpp laa fonk ñëpp laa respecté waaye yow dañu yàgg lool te ànd bi rafet ñee bokk si ñebe laat yaa ma ci jëkk sa doom am sa te loolu fonk ma ak bëgg ma rek a nga def ko ak bëgg sa wajo yow yaa nu gën a xam si Abdu Lahat ndax moo la yar man yaakaar naa li ma nekk Sëñ Abdu Lahat bu weesoo juróom-ñaar di jàngee xam naa li ma dëkkaat bee lépp ay ñetti at ñeente doon li des lépp Sëñ Saliou laa ko nekk waaye yow 72 ba nëgën yaa ngi nekk càq li woo Sëñ Abdu kon si Abdu Lahat jikko ji yor nga ko bu baax a baax nangu nga kilifteef wayaf nga sëñ Abdou Lahad yàlla na koo dimbali be xam nga doon sa sa baay doon sëb sëñ dafa yomb mais benn doomu sëñ Abdou Lahad boo xam ni sa sëñ Abdou Lahad la jébbalu amut ñëpp danañ jébbal sëñ Tuubaa sëñ Sidi sëñ Saali lañ ko jébbal mooy sëñam sëñ Cheikh naa amee sëñ Saali ñii si yëpp noonu man nii sëñ Saali nangam nangam ku bëgg nag lëggéey sëñ Tuubaa te lëggéey bay dëgg foog nga roy suñ kilifa yu baax yooyu sa soxna bu mën ci yow dara balay gàllal ko ci liggéey sëñ Tuubaa sa doom bu mën ci yow dara bay gàllal sa liggéey liggéey sëñ Tuubaa sa mbokk bu mu ci mën dara jëralal sëñ Tuubaa fonk taalibe sëñ Tuubaa yi tey disoog ñëpp loolu ko def da nga tey da nga réussir doom nag moom soo ko jëlee ndono dong lay xaar ci yow loo ko jox loo du ko joxe ndono dong lay xaar say magasin lay tëj <laughs> lu ñu ko jox mu denc ko ngir soo dañu doon na ko te lépp sëñ Tuubaa ko moom kon nañ delloo suñ bopp jox ko sëñ Tuubaa roy suñ mag ñu baax ñooñu man nag sëñ Fallu ak sëñ Ablaat ñoo ma gën a marqué ndax li ñu am lépp dañu ko jox sëñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullah su ko defee na ñëpp teewlu rek euh, sëriñ bi ñaan kon ñu ngi fàttali programme culturel bi ci kanam incha allah plateau spécial bi ñu def kër sëriñ Abdou Lahad talaata ci guddi ak euh, incha allah alxamis la ñuy ubbi exposition bi li sëriñ am satu doon wax képp ku bëgg am gëstu yu leer ci Cheikh Abdou na ñëw ci exposition bi alxamis ci ngoon. ajjuma bu nee suba màggal gi la jàngat discours Cheikh Abdou Lahad bi nga xam ne defoon na ko ci màggal 1976 suñu fàllu bu sansan di ko def kon loolu mooy programme yi ñuy xaar ci kanam ak conférence su daayira sëti Sëriñ Abdou Lahad yi di alxamis ci guddi kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. ay xam ne sëñ wóolu ak gëm ak ragal ak yaakaar sëñ Tuubaa rek lañu ko def